finance muy Sidi M Keita bi mu demee si National Assembly bi dafa wax ne réewum Gambia am na bor bu toll ci téeméeri billion ak fukk maanaam one hundred ten billion dalasi euh, naam si laaj nañ ko ci lu mel lu ndax where it is euh, sustainable euh, Yahya Menteng Sanyang sax moo laaj moo laaj loolu xaritu kurang mu wax ko ne ko yes it is sustainable so réew mu mel ni Gambia ñu ngay wax fii whether it's a failed state wala réew mi dem na wala demut ñu yore bor bu toll ci téeméeri million téeméeri billion ak fukk te li ci ëpp ci li nguur gi lépp muy si nguuri euh, Barrow gi la since 2017 euh, euh, doon nañ comme ni ni ko président ni ko kii waxee ministre bi doon nañ lu toll ci over 40 billion yoo xam ne bor la bu ñu fi fekk bot ñoom liñ lépp boo ko boolee moo ëpp fuuf li nga xam ne boo boolee jawara ak ki nga xam ne mooy yaay jëm ban jàngat nga nga ngay def si lool because man as a man um, su ma doon doon suma business bi ma am that kind of liability. as loans I'll be worried te man as man businessman suma business su collapse man nag laa affect but a country suñ demee bi nga xam ne uh, collapse economically and financially is very alarming so gis naa tamit um, bor yu njël noonu uh, am na somme yoo xam ne dem na towards loo xam ne dafa advance infrastructure bi développe dëkk bi mm-hmm. waaye tamit man dama de always complain about government waste because uh, government bi di nga digga sometimes dañuy spend a lot yoo xam ne man in my opinion dama lay gisee loolu yaa yaa xaalis la teg for example um, tukki um, you know xaalis yu ñuy spend teg for example some embassies yoo xam ne ñu ngi foofu noonu we are spending so much money on them and they are not fii di di kind of ñu jënda yoo xam ne man in my opinion um, mën nañ koo rent gisuñoo to to spend that amount of money boo xam ne ba léegi maa ngi dégg ministre bi mu ngi complain ne mënuñoo even fay ñu ngi struggle bu fay lu ñu ne xawma 20 percent rek la la ngay fay on those cars man in my opinion they could have even gone and rented those cars suñu renté bi bari ñu delloo ko that would have been cheaper so government definitely should um, uh, xaalis ba pare ñu cope on ba pare ñu make sure tam ne loolu yoo jël nekk na loolu yoo xam ne dina indi yokkute because man tey su ma demoon jël benn loan boo xam ne dama ko dugal sama business bi wane loan bi dina yokk sama business bi by far nga xam dina dem nga xam ne man naa a fay loan bi hmm. then I don't mind waaye su ma demee da jël loan tay on behalf of my business ba pare man ma jël loan bi ma dem ma dem def lan ma dem takka ñaari jabar dem holiday diko ko enjoy lo xam ne di indi any yokkate sama business bi hmm. loolu is alamin so maa ngi government bi pour ñu really do something about that ñu uh, wasteful expenditure bi ba pare itam ñu make sure ne any bor bu ñoo jël ñu nekk bor moo xam ne dañ lay yokkati si dëkk bi because suñ ba nga bor yi dañ loolu c'est big problème for our country because dafa mel ne suñ crédibilité bi dafa dem down ñu mun naa collapse économie su collapse mooy comme courant docteur courant lu moo ah, ah, courant lu moo wax rek ne mun naa indi um, other other problèmes yoo xam ne mm. du baax pour bi